yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu rek. waaw man nag. Hmm. dañoo jël xeetu décoration yi ñu war a def ci kër gi yëpp teg ko sama loxo. Hmm. léegi nag ma bëggoon ay rideau yu nice. Hmm. waaw kay loolu laa bëggoon tey. waaw ay yi ñu ngi nii. yéen moom macha allah lépp lu nekk ci kër ga yéen ñu ko jaay. waaw ah, fii mooy kër yaa xadi. waaw ah, fii mooy kër yaa xadi macha allah yu rafet la ñuy jaay yu am qualité. Uh-huh. moo nekk nii yi mooy. ah bii moom nice na moom bii bu gris bi la. de. rafet na trop. ma xool motif yi. comme am na comme modèle bii. ah bii tamit bii nii bii trois lay def. bii ah, trois lay def waaw bii trois lay def. gisoo bii tam allahu. allahu macha allah bii ah, allahu bii tam légère la quoi. c'est très joli. Mm, ay rideau yu rafet la. rafet na dama xool bii nii. bi oh, ma xool bi mooy brocart bi. bii mooy brocart bi. Ah. Mm-hmm. Mm-hmm. bii am nañ ci ay modèle. Mm-hmm. rafet na trop. macha allah rafet na trop. c'est très joli. bi moom dama koy yóbbaale. ah bii danga koy yóbbaale. waaw kay dama koy yóbbaale. d'accord ma xool bii nag ma xool. jiite ma ko sama. bii mooy bi. bii ma daa kale. mooy jipir bu beige bi. allah bii moom mën na dem ci salon. bi toj na de. rafet na trop. dafa gudd sax dafa gudd voilà. macha allah. génne na bii tamit dégg bii Mordor la bii bii mën na dem ci salon. ah dëgg rafet na trop. bii moom bu ma ko takkee dina nice. waaw moom dafay rafet ma rek. waaw léegi naa la ko mélangé. moom rafet na trop. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi ma mélanger la yi. mélanger ma ko waaw. d' accord la. lii mooy attache yi rideau yi. donc ah. yii ay attaches la. aussi. attache bu dee comme bu bi nii. dina mën a ànd ak. dina mën a ànd am na fi yeneen genre attache aussi. Mhm. yoo xam ne comme bii. Ah, moom moo nekk comme genre bii nii. Ah, waaw wax nga dëgg moo nekk nii yow li rafet na de. dina mën a bi amaat nañ fi yeneen genre attache yi mhm. comme yii nii ah, macha allah pour yii dana dina ànd ak bu beige bi nii ñoom mhm. dinañ dee bu dee bii mhm. mooy comme yi nga xam da nga koy def ci miir bi nii ah, ah, da nga koy mu taxaw waaw mu taxaw waaw na trop kon defaaleel ma ci biir d'accord waaw macha allah kër yaa xet daal moom ku bëgg lu daal fii ngay na trop pizza yu qualité dañuy jël. dëgg ma xool man man xamal la man ñëw ma fi pour pour juboo ñëw ma fi pour lenn waaw dama amoon dama benn solution rek moo tax ma jaar fi ma ne ñëw nuyu si leen moroom la nga tax ma ne xaaral ma ñëw nuyu si leen du dara nag moo tax ndax nit mënoo jóge ci kër ba pare bàyyi waa kër gi noonu. man jotee maa ngi yéen dara man jotee maa ngi yéen ñaar dara man man boo laa boo laa joteel ak ba bu ma rombee ci buntu kër gi ca jaar ma fi romb ne nuyu leen day nuru leneen moo tax waaw loolu lu tax ma di leen wax ak solution. Badiane da nga doon nuyu c'est grave soo nuyoo mën nga dem ah parce que xam nga aussi xam nga luy problème bi lii nga dikki nii moo moo jaadu yow dàq nañ la génn nga kër gi demal si kër gi rek demal si binom nga jéem a xool nooy waxtaanee ak moom. waaw parce que wax ji moom jëru ko quoi lii moom sën ah sën fekkee lii mën nga ci dara nga wax ma ko man de mënuma ci dara jiwu ma ko sax. waaw jërëjëf ndax xam nga ni génn bi nga génn man la gën a naqari ci àddina man sama gàcce la damaa boole naqar ak gàcce li ma boole metti bu nag wax naa ba sonn jéem naa wañ loxoom segem buu mi ma jur a melati ne ku ma xamelu ma wax mu ne ma yow ci sa bopp sax boo ci intervenir abal ma kër gi man mi ko sukkoon jur. lii la ma ko wax. man affaire interview intervention yooyu amul problème sax xam nga man léegi bi wax na ma sax ni man moom daf may jaraat ma dem këram ay après jours loolu la wax pour fa ci biir kër gi dañuy defar kër gi ak yooyu tax. sën ngi lay avertir di la ko waxaat seen affaire u espèce yi bu leen ma ci woowati c'est pas mon problème léegi bu su ma fekkoon fii tey lu muy wax. caam dafa lan dafa rallier rallier wu ma fenn tranché wu ma dewu ma fenn laa wax fa ma nekkoon laa nekk bu laa àndal tey bu laa àndal suba bàjjen génne nañ la kër gi demal génn suñu kër bokkuñu dara maag yow bàyyi dama ne eh déglu ma bàyyi la ñu bokk bokkuñu ndey ak bàyyi bàyyi sa yii ngay def sa yi saytaane yi ngay def yow tas nga kër gi ba pare bañ génne la kër gi bu génne la kër gi nga bëgg ñun ñu génn man génnu ma man fii laay toog man buu moo yor borom kër gi nee na ma caam toogal ci kër gi amul leneen amul caam bu ma wax caam bu ma woote ci yii de dégg baax li ma la wax yow. wax jaa nga bëgg a bari nag. Badiane yow sax yaa ma tane ndax yow sax am nga chance santal yàlla yow mi nga xam ne binoom nee na la mën ngaa des ci këram waaye man mi tey bu ma génnoon kër bu fu ma jëm. man damaa amati mbokk. fii 10 jours la wax pour pour man damaa bëggoon a def ñëw eh, garage bi man eh, garage bi sax bañu ma ko. Eh, amul 10 jours amul 2 jours. xam lu ma la xamal yow man maa ngi ci biir kii saytaane la. daf la bëgg a boole àdduna dama la wax lu leer kenn du ko mën a xar ci àddina bàjj fii ak 10 jours man fii ak 10 jours rek man garage bi mën naa fene pour biig am mat la am garaawul man am naa benn mer gàddu mën naa ko lal léegi sama rek problème bi rek la ma daal di dem waa jën déggoo li ma la wax man sama bopp rek fi mu ne nii man damaa jaaxle man mi sama bopp sax damaa ragal sama benn tànk ngi ci biti ndax li ma bu wax li nee na boo ciy jéem lenn di ma abal gi kii daa mel ni fi ne dañ koo yërëm ma ci mën yërëm naa la lool ba ah déedéet yërëm mooma kay yërëm mooma déedéet yërëm mooma ndax sa doom yaa ko jur yaa jur sa doom sa doom yaa ko jur yaa ko nàmpay sa wenu sa bi góos bii ko wax loo xamante ni lu war a lu war a kii la lu mu war a bañ la te man may bàjjan ak ak li ma daj ci buu man buu man daf ma bett ti ma déçu ba taxaw tëcc da ni di bàjjan day génn ah sa ma sama bagage sànni ko devant tout le monde ah man lu man dara naq man amoon ma naqari de bu leen defee ne dafa am ma naqari de dara naqariwu ma man dara naqariwu ma xam nga ma naqari man man li fi sama yaay nekkul ak sama papa li ñu dund man lool moom loolu moom ma touché ak man li ma amul doom man loolu moo man naqari na tey su ma amoon doom tey jii de dama koy wax dama koy wax. sax loolu sama yaram day doon. sama yoon amoon doom su ma amoon doom tey jii su su dina ma tabaxal fu ma ne wala moo sori bu dul woon moom ba tey dem naa. sama xol daa ngi am dara je je je regrette tout. di nga dem kay eh, di nga dem gàccee lay bëgg rek. yéen je regrette tout pour pour la famille là yéen yéen a gën a bon ci àdduna man man ko ñu ma xamul fenn fu fu bëri gën man àdduna yàqu na te man kat binam boo ko ma dara de man a damaa mën a fen man maa ngi naan binam binam nee na waa parce que binam daf maa dàq dégg man fan laa jëm fii koñ bi amatul ay kër de kër yi gi jàkkaarloon kenn dafa dëkk vigilateur bi moom te mu dindi kii bi ba def ba defee benn mat la di fanaan et grand vigilateur soo paree nga ñëw dama laa soxla di ko am nag incha allahu rabbi day njaay as ba mu demee di ñaan baat ba mhm. waroon nga koo appuyer ndax soo ko taxaw woon ba mën naa ne du ko may baat waaye lépp yow la yaa ndax li ngay wax ak li ngay jëfee du doon benn mhm. nag demam ci kër gi jël ndax bii mooy fase ñetti yoon te leen nag naa la ko xamal mhm. gis nga kër gi ba moom jarta neexal jarta xëccu jarta def loo xamante ni benn jég def ko fi woon ku war a génn kër gi di nga génn kër gi far la force waaye yow dangaa toog seetaan ba mu ëpp ndax asu sa doom ndey la taxawoon na la nag fu ne loo wax rek mu ne loolu la wax asu nag daa ñor muusu chaque jour ma wax ko nee naa ko bàyyil jël sa xel di ko sànni ca àll ba nday njaay di la jox xelam nga di ko xelee ndax nday njaay wuju dong du la waaye nag mu musuma dikk te nag nag añ baa ngi nii lii da nga ko añale yow comprendre affaire bi ni mu demee A ba Z xam nga ko déglu dégg naa nga wax ni asu dafa ñaan ba asu ñaan baat dañoo toog mu engagé toog di wax ak jëkkëram ôter le ton ôter le voix xaw nu ñu koy waxee xas jëkkëram di wax maa ngi moom a attaqué ndoo mais lim ci wax dafa ëpp mais yow gis nga dëgg la ni ah fase bi ñu fase Fatou Kiné fase ko Oumy mi neexul kenn ci kër waxtaan nag du dem wax ak ah, ba tempomat comme man ni ma def wàcc sama voix xool nuñ koy rek kilifa dañ koy neex. ñun ñaata yoon nga fi yëkkati sa baat. bokkul fii kaa la problème bi dafa de problème bee kaa bee critique mu wax lu ne jëkkër di jëkkër ba moo ko fase mais ak ñaanu waaw ah, yaa ngi toog maa ngi toog waaw lu ma ci mën. léegi nag boo waxoon ba du ko fase. waaw man lu ma ci mën as xarit baba damay hmm. damay dóor ba wala ma xool. jaay nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg ah gis nga fii jaayante ak réeru amu fi amu fi mais dama ne la lii fase dara ndax ba mi ma gis fase eh, assumi maa toog amul témoin ana ana ana kii bi ana moo ko témoin man jëluma engagement wu témoin kon fase bi demul fenn ci catu laaminam la dem muy benn. ñaareel bi yéen yéen a muusu amoo leen muusu ko ko wax ko wujje waa wujje kasa la mbir mi wujje kasa la de dama leen a ëpp xel xam fi may teg sama tànk xel moomu nag am ko gis nga bis boo fi jëlee engagement naan da ngay dem di wax ak bax yaa ci toog kër gii fii kenn toogu fi de xob yi sax ba ci garab yi wóor seen toog bi wóoragul ndax à tout moment bu mën naa ñëw gor fi mu toll ñoom ñaar ñëpp a pikiru ñàkku wax naa lu leer man moom neexalu ma def ma dara xam naa jukkoy ba bu ma neex neexal lay bañ fi ma toog nag laay toog pinge sama cër gën a moomaat sama bopp toog xoolaat ni man baa nga dem def nga ci benn gis nga ba ak buub bu ñu pikiroo ma jël samay doom toog naan ko ni na secc man faalewu ma leen ah, gis nga l'essentiel man sëy bii sax dama cee sonnoon déjà sëy boo xamante ni kenn xamul liggéey ngay sëy kenn faalewu la ci kër gi yow lijjanti woo leen waaye wañ dama doo da ba mais doona yow bul xaar loolu laaju ma la yow laajuma la na nga kàmbalee as ba mu dem noonu nga ma bëgg a kàmbalee. man lu sama yoon. déglu ma ma wax la man asu ngay naan xelam man sama yuur mënoo koo naan sama ma wax la ko. wol ba waxtaan gis nga ba maa koy dëj wa ko li mu bëgg a dégg. faalewu ma ko. ah xet baat defal loolu waay day baat dama maye baat. non moom ma loolu demal rek yow demal toolam lenn nag maa gis nga li fi jëlee faat ki ne. Mhm. génne fi bàjjen jële fi asu du la fi baax aja man du la fi baax to dama fi baax man bu ma fi moom sa sama damay sama jàmm laa nekk ni nekk as xadi euh, kër gi moom ku dund ba génn fi da ngay sant yàlla yow xam nga loolu li ci kër gi gis nga ko dara na la ko comme nga nag na ngay dem wax ak ba demal ba ma ngi noonu yaa ngoog ba fi mu toll dafa jeegu de maa gën a dem dem dinaa ko def man ko dul ba sax faale ma ko yàlla rek laa yaakaar. ah yàlla gis nga say waru daal la rek bu waree jeex day jeex kenn mënu ci dara. yow nag ni nga nekkee nekkee ko rek yow sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci yaa ngi dégg bu dee nag loolu ngay namoo fi mu toll nii nag yàkkamti nga ba ñëpp dem nga jël toog nag daal di àgg. waaw damay téye sama a jëkkër. non loolu la la ko dul may. man mayoo leen ma ko mais maa ngi téye sama jëkkër. di ko wan ne ko da nga koo bëgg da nga koo bëgg ba nga fel ko génn ko ca biti. waaw kay yaa ngi yaa ngi ree nga bëggoon sa xol bi sedd na guy. lii nga yow nday njaay. sa baa ngi mel ni galaas balaa ngaa am jàmm nag fi mu toll ni ñëpp a génn waaye génn du génn asu nag moom dafa fa fayda dama jëli ko kan laay jëli asu man su ma waxee ba li gas ba ah, man as nu ma ko jëlee sax moom mi ngi ci ñetti fase moom dafa dof ban ñetti fase bu leen yaawi loon naa ñetti fase bii ne bu mujj bi valable na man man maa fat nekkoon te duma témoin yow de xam nga ne man su valable sama kanam yow yow nga wax ne valable xam nga na nga tax ne valable boo toogee feneen ne valable na xam naa la waaw baax na ngay bot yow maa yooyu demal yaa si de yow moom nañ la fase ba pare doog maa fase man jël na engagement boobu waaye man moom du ma la njëkk a dem bi tey moom neexul quoi. bon yaa ngi si jàmm. waaw. nekk nga ba suur. nekk naa ba suur waaw. ma may la ndox ma naan wala. marum marum. dama bëggoon ñu waxtaan. man nag laay déglu. sama position laa bëggoon nga xam ko. sa position ci la ci yow. am sa position. man yow laa àndal de. li nga def nii d'accord naa ci ak yow te man nag damaa bëgg nga xam ne man sa rakk laa te loo soxla ci kër gi mën nga ma kaa laaj lépp fas yéene naa pour def ko fas yéene naa pale fas yéene naa togg fas yéene naa def lépp ci kër gi sama yaay nag moom lu mu def ànduma seeg moom ndax warul toog sama papa di ko tontu loolu mu koy tontu. Hmm, kon fase bi ànd nga ci. ànd naa ci fase bi kay man yow loo ànd rek ànd naa ci. li tax yow fase bi àndoo sa yaay. damaa bañ a génn. wala nga toog. mais bañ ko ma dàq comme dàq bi daa xew bëggoon nga bàyyi ma rek ma toog day am mën a jàppal ngir mu ko moom démb bi may woo gis naa sa appel dama laa ragal a jël ndax damay ragal ni la alaw gën ma génnal te man awma fu ma jël jëm boobu. maman dama la woon parce que daa am dama yónni benn livre mu ànd ma li may lekk yow yaa newoon ci suuf pour nga yégalal ma ko. Mm. je t'appelle nangoo jël téléphone. ah loolu nga ma doon doy. waaw. waaw xaw ma woon ne loolu nga ma doon doy pour man danga maa bëggoon génne kon génne woo. génne ma la. génne góor. waaw. à tout mën naa génn. à tout ku ne mën na génn ci kër gi. Ah. awa mayetuma ay far yu lay seet ci biir kër gi. xam man am na lu ma bëggoon wax sax doo may ma àggale. waaw. Ah. sama xaalis bi ma sama jëkkër ji mayoon denc naa fi am naa fi un million soo bëggee ma abal la ko xam naa soxla nga ko instant bi soxla wu sa xaalis. yow nee woon xaalis bi jeex na. mu doon foo rek léegi kër gi xale newu fi. Hmm. xale mi ngi dem di ñëw. boo xëyee suma nekk na ko defar hmm. mu fa bay sama jabar yi dem nañuy dem. Hmm. defal sama nekk. nga bàyyi ba ma yeewu wala ma liggéey nga defar ko. loo gis ci nekk bi bul laal. far mayewu ma ko fi fi bi minuit dama koy fay. góor ñi kay pare naa si ñoom. amul ay connexion bëggatuma la romb ngay def sa yëfi dof yooyu ci kër gi. sa yëfu golo yooyu ay snap ak ay selfie laa bëgg nga arrêté ko. su ma jógee léegi désinstallé kii bi application bi. waaw jógal dem defaral ma tey maanaam. defaral ma tey. kër gi moom maa ko moom ne boo fi yoree yoo boo yoree reewoo mel na ni yoroo yore da ngay reew maa ngi si buntu kër gi laa xaar ma ne maa ngi si buntu kër yow rek laa xaar ok Ça va Oumou ça va. si jàmm. en nekkoo si jàmm sax parce que looloo ma tax a ñëw. Euh, Oumou man dama bëggoon ñu waxtaan Oumou euh, wax dëgg yàlla doomu aadama day nangoo doon doomu aadama nekk doomu aadama mais doomu aadama nga bañ ne yow doo doon doomu aadama doomu awa ngay doon rek wala doomu jay na ba Oumou lan moo tax. yaa ngi dégg nga am ay nattu ba pare te nattu yooyu nga am mënoo koo jël nga teggi nattu yi dem nekk si leneen ah mais ma masa coono xam nga tamit nga sëy tas sëyati tas sëyati tas loolu man damay jàpp ni sax comprendre du nattu ñàkk jom la parce que yow ki nga topp bugg la mais nga dem si ñi nga xam ne ñoo la bëgg umu umu nit nga bul def sa bopp xool li lay jàppee naan umu dafa dof dafa def nii non non umu xam man sax mën nañ ne dama feebar dëgg la waaw mais ku nekk am nga feebar mais yow sa feebar dafa ëpp sa feebar dafa jéggi dayoo ëmmu bàyyil kii ta nga dem xool yi keneen bàyyil boo mii na nga dem yi keneen dégg naa yaa ngi fay jéem a demaat di jéem a kii ak munoo jugee kër jàmbur gi nga dem man boo rek a ma soof bu jugee di jaay ay lex yu rëy mel ni kuy lekk suuf ah ëmmu lan mooy sa problème. eh doy na waaw <laughs> wala bu doy dafa am keneen ku nekk fi koy waxal wala man ngay waxal. ëmmu yow laay eh, waxal. maa bëgg nga tëj sa naanu kay fonde bu yàgg bu bàyyi bi xam laa bu yow daal su ma nekkee ci ay problème rek laa lay gis. waaw fan yii dégg naa la ci kër gi ngay dugg di génn bañ naa ko ba damaa màndu ci yow damaa génn ci sa lépp say juróom-ñeent du ko fukkeel sa ni ma génn ci yow. nu hmm. ko raw laa bëgg nga génn ci man. non man moom franchement. na nga génn ci samay 18 laa la wax su ma fi toog ak su ma fi dul jóge du yow yaa ma koy wax dégg nga yow mu perte mu dëkk perten amoo foo nekk dimbali ma dégg nga. waaw dëgg la ki perte de moo taxaw tey pour arranger la man dama ne woon comme fi mu toll nii tàggoo nga ak boobu ñëwal man ma daal di lay jël. nga eh, hmm? wax yow. looy def nii mais yow man pare gu ma nga taxaw di di di ma dóor nii umu la mooy sa problème man munoo bàyyi dañ naan umu dafa dof rek nga ko man am naa feebaru fen sax dëgg la dañ naan fenkat la am naa feebaru fen mais dafa am fu ma koy defee ak fu ma ko dul defee mais xoolal bu baax ni nga mel. ah nga taxaw ma baal ma wax la li ma lay wax ngay taxaw di def sa affaire yi umu man dama laa bëgg te xam naa ne ni la boo bëggee nu ko raw a raw a raw laa la bëggee yow boo sax bëggu la boo da lay minimiser di la maltraiter di la def yoo xam ne warul la ko yow boo yow yow umu est yow sa baay binom la est-ce que binom moo la jur yow yow jom gi binom am ak fulla gi mu am yow umu nga ñàkk jom yow lu binom amoon ci jom rek umu ñàkk nga ko jom munoo ba boobu mii da nga ñëw nga seel ma ah ah non doxaanuma la dama laa bëgg a tax um waaye boo jooyee nii xool non non ma chérie bul jooy bàyyi man ngay doxaan mais bu toll yow bu jooy waaw bul jooy sa futur mari mais sa futur mari nga ko def de mais kii lan mooy problème ma xalaat rab yi ñoo yëngooti man bu rek a soof bu jógee di jaay affaire u DG. baax na bu yoon jeexul waxu sul di jeex. tey ni nga sañsee daal. def sa veste def sa trait def sa lacoste. parce que moom dañuy yaakaar ni koosoon rek daa war daal dëkk bi dafa tàng fekkee sa bureau nekk clim nag léegi looy wax. waaye bu bureau nekk ci bu clim ba nekk ci bureau ba booy génn nga simmi ko teg ko fa. ko simmi ko fa teg. du moom laa solo génn. wala temps bi. loolu soo ñëw bay passé nag nga di daggi pompiteer yooyu nga defoon nga xam ku ko lokk dootoo ñemee wax da xaar ba mu sedd loolu laay bëgg nga arrêté ko ren lu dégg voilà moo tax cette fois-ci man maa duggal sama bopp frites ah tawféex. ah lii moom saafal jox ma. yee nga baxaloon ba mu tàng jël ba kolloog doo am loo expliqué bay loolu voilà. yow ba six heures trente amee ba léegi xoolal kenn sonn ko. voilà bu ngeen di dagg dagg pomme de terre yu rëy xam nga ko de terre dañ ko daan jënd dañ koy baxal ba pare doog koo saaf te loolu baaxul mais bii moom da ngay jël rek sotti rek wala mu woo koŋ voilà léegi man lii laa bëgg nga defal bokk lépp laa lay saa korité leen moom bëgguma ci coow quoi vraiment géreel ma ko normal bilaay du am bilaay du am ok merci coow li moom du am boobu soobee yàlla yonent bi ak comité bi rek benn coow du am waa doxantu ba ca laat jënd ko sama frère alma alma mos ku la ko jaay nga ne bàyyi laat sama frère la ah, ma xam bàyyi laat nga nag sama frère yow ma ngay présenté bàyyi laat ma ne dem loowu ma la fa bu fa dem di fa lebi voilà doo ci laal tuuti jox ma ma ñam balaa. ma tuuti laal lan. li ñoragul di wala da ngaa daa ñor noonu. Oh, voilà. ça va. ça va. oui man de génnoon naa sax xam nga kilifa dafa am lu mu war a toog nu mu war a xale bi fi la nekkoon di si yow génn fi demoon naa sax doxi tànki jàmm nemme parce que boo toogee rek day mel ni dañ ko téyel eno la leneen. ci ñoom kinne euh, kinne ah kanaan ah, kan. yii rek lijjantiwu ma leen. Ah, dama seetalee waaw xam nga comme feebar la fi jóge bu doon ci normal wala dara mais boo toogee nii rek day mel ni yow yoroo xolu juddoo la dara. xam nga ne ma la. da nga dem ma naan dem waaw waaw dem ah, loolu waaw xam nga ne ma la waaw. Eh, doon naa déggantoo ak yaayam fan yii sax doon nañu déggante ci téléphone. yaayam waaw yaayam doon nañu déggante téléphone yëpp di waxtaan waaye ku jigéen ju baax a nga. billaahi ku baax a nga xam nga cat du wees rek hmm. cat du wees waaye kenn gënu ko Euh, soxna sos ku baax la. Hmm. baax ku baax. lu ngeen doon dégg wax ju rafet rek wax. feebaru kii la wax lu bon. Hmm? lan la ma wax. non dama ni wax ju rafet rek lay wax lu wax lu bon man looloo mën nekk ci jigéen yooyu. papa yaayam ñëw na ko ah. boobu mer na rek xam nga doom fii la sax doom jigéen fii la sax ci yaayam. yaa ngi dégg yaa ngi dégg sa yaay. toujours boo nee xadi mu ndaw lu ne mu mu tàkk ah. gis nga ko fi mu nekk nii li muy muñ muy xamatul lu muy def mere na paate mere ko ba xam noonu la demee dañoo seen yaay ay complice la ñoom xam nga li ma la waaw. naa ne sax moom bu yàlla bu yàlla defee jàmm ndax kër gi fi mu ne wéet eh, am na jàmm ni moom a hmm. euh, na ñeneen ñu des. te kër gi am na espace fi mu ne nii. wala nga toog nii rek. man hmm, amoo benn problème. fan sama néeg hmm. man nag juddoo ma noonu. juddu di wéet. man dañ bind sama jël. damaa war a yor ay jabar. dama déedéet mais mais ya loolu loolu ci suñu dund la bokk. dañoo am droit ba ñeenti jabar. waruñoo dund noonu. man na je suis bien je suis bien dans ma solitude. nag sa dundin. waaw waaw te euh, bu yàlla de defee jàmm xam nga yàlla moom boo booy boole ay sëy ñaan yu sëy ci yàlla la jóge bu ko bu ko tuddee kenn mënu ci dara boo doon daw di di cay avion yi dinoo def sëy ba takku tas aussi noonu la yàlla moom moo nag moo ko sàkk waaye bëgg ko sunu borom bi boobu bu ko neexoon doo am ah, moo ko sàkk na hmm. yàlla daal xam naa bu defee jàmm moom yaay ki ne dinaa ko jël parce que waxtaan nañu moom si boppam sax moom moo bëgg a dékk boppam te ni waxee sama yaram daa daw. Euh, papa waaw jël mooy lan jël hmm. comme. dama koy jël jabar dama koy jël soxna. pour ànd ko fi. Ah, fi kër gi am na espace bu njëkkoon sax fi ne kër gi am na espace. néeg yi libre bari nañu. papa lu tax lu tax mënta ne. nga takk yaayu kinne pour kinne àndaat ak mu ñëw ci biir hmm. kër gi. non du kinne mën naa ànd kinne kër gee kër yaayam la. yaayu kinne doo ko takk. non de bu ni duma ko takk. doo ko takk. non defal nag man nekkoo ci sama xol du yaa yaa may bëgguloo loo wala yaa may takk kañ nga bëgg yaayu kii ne ba koy takk. waaw mais mais loolu lay wax ji. Euh, Pape ko yaayu kii ne duggul ci kër gi lu bokk ak kii ne takkoo ko. non non. sëy bi lu am bul def dama bëgg nga xoolaat sa xel. bëgg nga xoolaat sa xel. loolu du ci man du ci yow. papa maa ngi yow boobu ba yaa ngi yaa ngi dégg li ma la wax bu yàlla takk nga bëgg a yóbbu ci yàlla. waaw mais dara ba yàlla di ko doon. waaw noonu bii man ak yow bu ñu am benn problème ci affaire sëy bi. ban problème lañ ciy am. ñu ngi ko ciy bëgg am nag. non du ñu mën a am problème. waaw waxtaan naa am na kilifa yu ma ci waxal yaa ngi dégg dinaa fii y a de l'espace. ak Guinée dinaa ko takk indi ko. waaw ah, di ko takk waaw. Euh, Pape boo ko takkee yéen ñaar ngeen ma abal ma te à partir de ça sax du ma xaar loolu. nga ne lan yow. papa dama bëgg nga abal ma kër gi. kër gi man. waaw ah. nga abal ma laa bëgg papa. ndax yaay ki ne ma bëgg a takk ma abal la kër gi yow dinaa la abal sa kër yow dinaa la woon ne man maay sa baay te yow sa kër gi du tax ma bali ma bëgg man ah, waaw du tax ma waaw d'accord yow xoolal sa kër a ngoog papa bul xaar bu xaar dama ni xam heure bu may xaar. man xaar gannaaw suba dama bëgg nga génn sama. man duma ku ñuy bombardé nag. duma ma ku may ku ñuy bombardé yaa ngi dégg li ma la sa kër dinaa la xojal fee mënoo ci gar dinaa ko takk dinaa sëy moom ah. voilà da ko yóbbu ko ci mbedd mi waaw dama la ah, ko takk kenn du bi takk kenn kër gi yi ñëpp may abal takk